defaraat réew mi la justice xex injustice la woté motax fal président bassir Diomaye Fay motax ñu fal parti bi wax pas campagne de limogeage parce que li tax ñu doore suñu cadre addu jëm ci mel Pape alignan di di ko Sénégal tax ay ay jéem nañ ko troxal waaye suñu borom bañ waaye nag dafa am kàddu yoo xamante ne wala sax bind bu mu bind ne lu ñuy xaar ci Moussa Fall ñu dàq ko maanaam lu ñuy xaar ci ki nga xamante ne mooy commissaire yàgg ñooñu ñëpp la ñu def xam nañ ko Moussa Fall plus de quatre-vingt-cinq personnes yoo xam ne faatu nañ ci régime Macky Sall ak ñu ñu blessé ak ñu ñu limogé ñu ñu tëj ñu ñu traqué. ñoom ñëpp def nañ loo xam ni dañu mérité ñu sanctionné leen mais nan lañ leen di sanctionné ndax dañuy ñëw rek toog ci nguur gi weer nga xam ne ñoom yàggagunu sax ci nguur gi ñu tàmbale di traqué ma jàpp ne loole ci boppam dafa war a am ay normes am ay règles ñu bañ a def la daloon Macky Sall bañ ñoo dal mooy ñëw rek di xool ay appartenance di xool kii lii la defoon wala lële nañu bàyyi yoon def yoonam nañu bàyyi justice bi nga xamante ne am na dialogue national bu président Bassirou Diomaye Diakhar fay woote le 28 mai ngir justice bi ci boppam ñu tëggaat ko justice bi am ndëgërlaay waaye justice bi am doole defal boppam te du sukkandiku ci président du Sénégal justice bi tamit am équilibre magistrat yi itam xam ne ñoom ci boppam dañoo jàng ba àgg fi ñu war a àgg. wara ragal yalla wara bayyi xel suñu borom ba lepp lu ñuy def rek ñu tek ko ci gëm yalla bañ ko tek ci par parlo loolu la japp ni moy idée bi nga xamantene wala sax moy projet bi nga xamantene mom le président Basir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko wote waye nak nañu baña dugg ci ay campagne de limogeage lolé sax dina am waye ni mi amé ñom dañ koy tek ci yoon ba képp ku ñu limogé wala képp ku ñu yóbbu frigo wala képp koo xamante teg nañ la teg nañ la ay daan sénégal yi bu ñu demee ba ci biir dañuy xam ne yoon ci boppam moo def yoonam loolu loolee benn parenthèse la boo xam ne ñun ñii woote woo patriote ñun ñi nga xam te dañu bëgg changement rupture ba jëlee fi ñi fi nekkoon ñun ci boppam il faut pas ñu def comme ñoom lañ doon def RTS ci boppam ku ne xam ne ne la fa nekk. lañ fay def Racine Talla di apéris di jëfee loo xamante ne kenn mënu ko wax boo jàppee ne Ousmane Sonko yëgu ko wala président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nax nga sa bopp yëg nañ ko waaye loo gis rek dafa am yoon bu mu laaj dafa am taxawaay boo xamante ne ci lañ ko war a defee mu doon loo xamante ne buñ ko defee tamit ñoom ci boppam dañuy xam ne def nañ lu yoon dama jàpp ne gars yi seen yaram moo tàng rek ak métti bi nga xamante ne teg nañ leen ko ak jafe-jafe yi sénégalais yi dund ci diir bi nga xamante ne Macky Sall nekk na ci bopp nguuru sénégal loolu rek la waaye campagne bi nga xamante ne moom la ñu war a def dañ ko war a teg ci yoon ousmane sonko nañ ko wuulu ndax it nag xam na li muy def xam na gars yi xam nañ gars yi tam lu ñu capable kon nag jaru yàkkamti pour jàpp ne nga toog rek tey xëy dàkk ki nga xamante ne mooy euh, général Moussa Fall loolee du ndam li xam lan mooy ndam li mooy enquête bi nga war a def lan moo nekkoon ci ginnaaw musa Fall kan moo taxoon Moussa Fall di def lu ko neex ba faalewul askan bi ñi ñu rey ak ñeleen rey boo bu fekkee gendarme la bu fekkee policier la bu fekkee du gendarme du policier ñooñu ñëpp lan moo tax ci boppam ñu def lu ni mel boo enquêté ba am source yu leer waaye mën ko daan daan yoo xam ne boo ko daanee kenn du jàpp ne da ngay fayantoo dañuy xam ne yoon ci boppam moo def yoonam rek.